waaw Macron tiitaange rek ko jàpp moo ngi nekk ci ginnaawam ndax ñun ñëpp xam nañu ne l'islam bi ñu defee ñoom seeni analyse fii ak deux cent cinquante ans l'islam dana dominer monde bi ñu dem ba ci ñi nga xamante ne bii sax duñu ay jullit ci seen jaamukaayu yàlla yi la ñuy yem waaye li nga xam ne mooy ummawu adduna bi yëpp l'islam moo ko dominer incha allah loolu nag bu leen tiitalee li ñuy def mooy duñu mën a salire deru l'islam waaye loolu du yomb ndax yàlla يسمون يريدون أن يطفوا نور الله بأفواههم ويأبى الله الله إلا يتم نعمته yàlla diineem ji moo koy yóbbul boppam fu mu ko neexee moo koy yóbbul boppam fu mu ko bëggee te jullit ñi ñoo ciy teg seen loxo kon incha allah. ñu ngi jooytu nag lii ndax jullit Seydina Muhammad la xam Seydina Muhammad mooy suñu royukaay. moo lépp lu ñuy roy ci àddina si sanga bu tedd bi lañ koy roye kon nag tey jii ku nekk gis na suñu mer ñun jullit yi ndax yàlla nee na jullit ne defee fi jullit jàppa julli nekk ci li ka neex si kantanu yàlla suñu boroom ak yonantaam bu tedd ba jottali jottali am na eh, ñii ngi liggéey ñii ngi yeneen ak yeneen ak corona beeg yëpp teewul nit ñi bàyyi nañ lépp lu doon seen soxla xuus ci yoonu jafe yi xuus ci naaju tàng wi ñëw taxaw ci naaj yi taxawaay yàgg-yàgg ngir défendre ki yàlla yónni ci nun loolu rëy na lool kon bés bi rëy na lool ci nun man de li ma jàpp ba ma xàmmee ba léegi mosuma teew bis bu rëy nii ci man personnellement mhm. mosuma teew bis bu rëy nii ci man jaral lu ju bare bare bare bare tànk xam riyaa rasulullahi moo tax ñu ñëw fii même soo fekkente ni ñu toog ci safara jaral nañu. wala mi ngi wax ci alxuraan ba bu fekkente ni kii ni topp ngeen ko mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ngeen jub kon koo nga xamante topp nañ ko mu jub koo nga xamante ni yàlla moo ko wax te waxantuwul koo nga xamante ni moom la yàlla yoon ne ko mooy sunu modèle koo nga xamante yàlla wax moom la ñu topp kon kooku noonu yaakaar naa ni buñ ko laaj dañu ñu laal ndax tey ba tey am na xadis boo xam ne gina wax naan seen ngëm du mën mukk lu dul da ngeen bëgg lu lu dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gënul leen seen yaay seen ngëm du mën mukk lu dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gënul leen seen baay seen ngëm du mën mukk lu dul yonent bi sallallahu gënul leen sen seen soxna seen ngëm du mën mukk lu dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gënul leen sen njaboot sen ngëm du mën mukk lu dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gënul leen sen am am kon loolu non ñun dañoo ñëw fii tay pour montrer notre notre mécontentement à l'endroit des caricatures qui ont été faites à au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamante dafa ñëw tay pour libérer ki nga xamante mom moy xet xeet ñëpp mooma arsalnaaka ila kafatan linnaas kon non Macron franchement a ah, allahu mustaan wallahu alam xamuñu ndax njuumte la wala daka tey wala daka rëcc mais ala kulli xaal luñ koy wax moom na xam place am na fu mu war a teg tànkam bu mu dugg ci li nga xamante ne daf ñuy yëngal ñun ndax xam Mouhamed suñu bakkan la waaw de toute façon daal na moytu moo xam lan moo ko ci dugal mais na moytu bu baax ndax kooku ki nga xamante ne ci ñun kenn du ko foowee moo ñu gënal suñu ndey ak suñu baay kon na xam place am daal loolu laa ci mën a wax. ñu bañ def ñu bañ def nag kon kon nu mu tudd euh, bañ a juum ñëw ñu fi ngir Macron Macron yëkkatiwul wallaahi bu nu woowoon duñ dem. bu nu woowoon da France jox ñu ticket duñ dem ndax yitteeluñu bokkuñu ju bokkuñu diine bokkuñu pas-pas bokkuñu gëm-gëm. kon yonent moo tax ñu jóg ñu bañ a fii nag naan Macron ñun li jënduñu Macron moom ak gouvernement bi. ñoom am nañ ñoo xam waaw ay laïcité yooyu mënuñu régler diine ñun lan lañu gëm islam mooy régler boppam affaire am yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal alhamdulilah ba nu ñëwee ci suñu ni bi nit ñi bég nañ xam ne l'islam rek mooy dëgg xam nga boo taxawee di wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam da nga xamante ne yow sa réew ñu la jiitu tagg nañ yonent bi ñu la ëpp xam-xam moom damaa jàpp ni ko xamul te daa soxla nag ku ka xamal loolu dafa bëgg a xam moo tax mu provoqué yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax ku ko provoqué doo provoqué benn nit doo provoqué benn pays humanité ngay provoqué moo tax gis na tontu yi gis na tontu yi te xam ne que ki mu laal du laalaak kenn du ko laal di di si génnee noonu te ñun moom ne naa ko moom dafa bëgg a moom dafa bëgg bës laa yaakaar moo tax muy wax si yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax ku ko laal rek yàlla xam ne mbir day jëm kaw <laughs> si lu baax ak